ñun jàng mbay ñu ngi ko jàngi si suñu papa jógee koo fi dem si daara yi ñu demoon daara ñu wax Touba ñaan am nañ fi juróomi at di bay bañ fa jógee ko foofu lañ taree alquran bañ fa jógee ko ñu ñib ñu ñib si ñu dem dëkk bu ñuy wax dagg bërin raami di fa jàng xam-xam foofu am nañ fi juróomi at juróom benn at di jàng wàllu diine kaw la it def nañ fa ay at li fa tafsiru Qur'an ak yeneen matière li ko fa jàng ba ñitti it dem nañ jàngale ji jàngale nañ dëkk bu ñuy wax Cheikh Omar am nañ fi ñu ñu bari ñu fa mokkalal dañ fa jógee ko dem nañ mbuuma jàngale fa moom am nañ fi ñu fa mokkalal dañ fa jógee ko dem nañ ko Samba Amat jàngale fa ginnaaw gi nag lañ ñibbisi ubbi suñ daaraay bopp ñi fii nag mhm. toog mhm. lañ ubbi daara internat mhm. biñ koy ubbi mu ngi ko départ maa ngi ko départé woon ci benn kalaas fi ne nii nag dem na ba toll fi juróom ñaari classe ñi mokkalit dama leen a internet ubbi leen franco arabe oustaz ba fay jàngale Soudan la jógee am ay licence am dikk maître français bi fiy jàngale mu ngi jóge ko moom directeur école la xam nga directeur école ñaare li muy am programme pour jàngale du bari loo tax ñoom ñaar laa séddale cours yi wàllu diine ji nag man maa koy jàngale ñoom nag ñoo séddale bis yi ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ci franco arabe bi programme bi gouvernement bi jël ci juróom benn at ñoom ñetti at laa leen koy def ren ñi ci génnee mhm. yóbbu naa leen école Fala mhm. ñoom ñëpp ñu am certificat ci arabe am ko ci français mhm. moo yóbbu leen ci école gouvernement bi ñoom ñëpp ñu am ko ci français am ko ci arabe ci ñetti at ndax dama leen a internet amul gerew amut ku tëj noor na nawet dañuy jàng ñoom bisu alxames kese lañ am di jàng ñi nga xam ne mokkal nañ ba pare mhm. loolu moo tax programme boobu moo tax daara ji benn classe laa ko déparé woon mhm. ñaar fukki nit ak juróom mhm. fi mu ne dem na ba man na cent soixante dix effet at mi ma ubbi daara ji nga xam ne man dikk naa toog ab diir jàngaleetuma ci ah, ah, biti maa ngi ubbi daara ji la sept juin 2009 ñuy yëngatu ci wàllu mbay ñu ràññee la ci wàllu mbay fii ci dëkk bi rawatina diwaanu Saalum Dieg tey ñu ngi fii ci kër kër Madiabel ñu fekk si la fii fas yéene waxtaan ak ci wàllu mbay période bi nag gis nañ ni période gerte la maanaam gerte gi ñor na mboq yi ñor na dugub gi yëpp ñor na ak yu demee noonu tey bëggoon nañu xam tuuti nga wax ñu ci wàllu mbay yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel fii ci baykat yi waaw jafe-jafe yi fi gën a am mooy gouvernement bi ni muy doxalee jiw bi baaxul ni muy doxalee engrais bi it ndax man lum néew néew suma wàllu gerte naa si def lu mat cent saak engrais si gerte ak dugub ak mboq it daa ko si def te li nga xam ne loolu na gouvernement bi si waa Soné ñaari saako laa si yàlla benn saako engrais gerte benn saako engrais dugub gouvernement bi daf ko indi ba mu jege mu bàyyee ko chef de yi. ñu séddale ko ci carré yi. amul kuy bàyyi ku bayut ku bindu carré rek ñooñu la jox engrais bi. jiwu bi noonu lañ koy jaarale ndax man fi mu nii. bu nawet wàccee. man jiwu bi may bay maa koy denc. li gën a néew danaa denc ci trois tonnes gerte goo xam ne dama koy defar ba mu baax pour jiw jiw gouvernement ñaari bërigo laa ci am sama ñaari kaay benn bi kër ma jibel la benn bi pawos ñaari kaay yooyu laay am ci jiwu gouvernement waaye nag looloo tax man damay préparé dencal suma bopp trois tonnes yoo xam ne nii pour xolli ko mën a am jiwu moo bay ndax xam nga ne kuy jàpp lu dem ci juróomi surga ñaari ton ñaari bërigo jëriñu la dara matul ma sax rëndal daara ji kon jiwu bi niñ koy doxalee baaxul engrais bi niñ koy doxalee baaxul Fiwa sonné na ko nag waaye ñun jotuñ ci ndax fi ne ñi ngi koy jox noonu ñooy dikk jaayaat ñu ko onze mille francs douze mille francs boo ko defee cent saag yi lu mu néew néew six day taxaw cent saag yi sax un million nangam un million nangam day taxaw ndax suma ma toolu mboq bi nga xam ne man damay def tool bii mm-hmm. ne daara ji laa ko féetale duñ mm-hmm. ma ko doon mm-hmm. su ma njaboot du ko moom tool boobu ëpp bu ma ko récolté danay mat dix tonnes bi siy teg suma mag bu ñuy wax papa kan mooy mottalil des dundab daara ji loolu su rakk bi ñuy wax Modou Fata Kan moo may jox cinq cent mille pour produit bi nga xam ne. Mhm. moom laay béyee mboq daara ci. Mhm. te yooyu yëpp yëg nañ gouvernement bi jàpp gi mu ci jàpp. Mhm. waaye ak si wut ci baykat yi. wala man de ak ci wut ci man boobu. man moom li ma dégg ni ñu ngi koy dimbale si baykat yi sax man bokk ma si ndax boo demee suñu kër fi ne nee mën naa dem wan la fase nga fitte nga foto leen fukki façon fa yoo xam ne nii maa leen di xëyloo maa leen moom jàpp fukki surge yoo xam ne fas wu ne xam na surga boppam ñu jox la ñaari bëri ñaari saako. xam nga kon joxuñ la dara de. joxuñ hmm? bay ñaata hectare. ah danay bëri de. danay bëri ndax dugub ji lu néew néew. dana mat fukki hectare. te gerte gi koy ëpp. gerte gi lu néew néew néew néew néew. 30 moom danaa koy am. ak lu néew néew nag. 30 tonnes moom danaa koy am ci gerte. te benn saako engrais lañ may jox. kon jàppu ci kon jàppuñ ci. li nga waroon jël après lépp daan li daanu wala ak yooyu. waaw ren moom dana ren moom perte dana si bëri. ren moom lu waay bay. si suñ digg-diggal bii. moom da nga perte. ndax lañ sa fere. du si génn ndax gerte yi ren. nawet nag mbiram yàlla la du mbiram gouvernement. waaye ren moom gerte yi màgguñ euh, te feesagut xamagun na ma nag feeg ba ñuy gasee ni muy mujjee waaye ci jamono ji ñu toll moom néew na baykat bu du perte ren moom gisuma ko si suñ digg diggal ji loolu loolu ci nawet bee ko waral wala mën naa nekk si nawet bi mën naa nekk si gouvernement bi ndax lu tax mën naa nekk si gouvernement baykat amul kattan mu bay ba nawet wàcc gisul fu mu ko jaayee saako jëfam jeex ordonnance taxaw ñu ne la ngay jëlal sa gerte gi nga yóbbu ko uh, usine nga noté fa doog ñu doog a lijjanti xaalis dem ñu jox la boo nga doog a fay baykat moom loolu gouvernement bi jàpput si tey jàpput si ëllëg bu si jàppoon dafay daf ñuy jegeel yëf yi mu yomb ñu luuma bii foog ñu jaay suñu gerte te mënuñ si dara si ne nii bu nawet wàccee gerte gi dafay tool si ay fanweer ak nangam fanweer ak nangam yooyu su ma surga si si laay xaaj su ma genn nawet bi yëpp jaay ko fay leen ñu dem la sa des laay doog a denc ba mois de mai ma doog koo jaay xam sa dara waaye bu nawet wàccee li may fayee surga yi dama koy jaay fay leen ñoom ndax lañ moom denc gi man la arrangé waaye du ñoom su ma la déggee daal maanaam baykat bay bi coono gi moo ëpp waaw noflaay bi bi amul benn jumtukaay boo xamante ne ni def na ko ci diwaanu Saloum fii gën yombalal jaay bi ak jënd bi ci ci baykat yi. waaw man de xam nga du may wax lu ma xamul. Mhm. ndax gannaaw duggantuwuma gouvernement. Mhm. mënuma saa wax dara. Mhm. waaye li nga xam ne xam na xamal naa ko sama bopp. man moom ndimbal xam si man. jàppale ma it ba njaay mi yomb ma it dafa ko xamut si man. jiwu ba yombun ma. engrais ba yombun ma. njaay ma yombun ma. lenn lu ne nag dama siy liggéey ba sonn teg. lam la ma sa ma jox ko seeni borom la ma sa moom ma denc ko ba marché bi cher ma jaay ko xam sa dara nii daal lay jëfandikoo ok léegi tey soo amoon benn message boo xam ne la nga koy lancé jëm ko ci wàllu état bi mu moo xam ne dañ ci war a ju ñoom dañu war ci jëlee leçon jàngee ji mën a dimbale baykat yi fii ci diwaanu Saloum waaw bu loolu de bu ma si doon joxe mhm. damay wane ne mhm. si waa Soné bi ñuy def eh, engrais bi nañ fexe mu doy si marché bi ba dootuñ ko aj si carré yi nit ceeb bi doyee si biti yi ba nga xam ne foo wiire gis ba nga xam ne foo gis ceeb nañ ko defee engrais bi ba nga xam ne foo wiir a gis engrais bu boobaa baykat bi ki nga xam ne bay ko tax a jóg bu jógee dafay dem xam fa mu jëndee ji engrais ba kenn du am intermédiaire diggante moo engrais ba waaye boo soxlaa engrais dem ñee génnee seen i carré génnee ko ay euh, euh, set 7000 dikk jaay la ko ay 11000 12000 nga taxaw fa la yore sa xaalis te doo sa feeñ noonu la ñuy jëndee engrais bi ba ba engrais bi jeex te loolu enrancé wut baykat bi ñi dut bay la enrancé feeg ñu ngi koy aj ci carré yi ñu koy aj baykat bi moom du si gis boppam nañ fexe engrais bi doy te teel a ñëw ñu dugal ko si magasin yi ku soxla dem jënd buñ ko subventionné mu doy ku soxla dem jënd baykat ba dana si gis boppam ndax maye moom saaru maye ku ko dal booyal ah mën naa am mu am fi nag waaye man moom gëstu gëstuwuma yooyu ndax man moom bu ma xamee su ma loxo guddut euh, su ma loxo guddut laa xem si su ma doolee bopp rek yàlla ji tawee daal kàttan gi ma may ma dem jëfandikoo ko rek te di ko tey gëstuwuma gouvernement gëstuwuma leneen nit nag bu nawet wàccee hit may làmb suma poos fay sumay surga ngóob rek fi mu ne nii tey ren bii rek nga xam ne nawet bi mel noonu ngóob rek fay naa si trois cent cinquante mille sur ngóob rek fay naa si fi mu cent cinquante mille te demaguma si euh, mboq mi demaguma si gerte bayam gerte dugub ak mboq kese laa gisee mhm. dikk si marché wala dikk si kii nag ñaata ngay jëndee borom toolam naa ko ba sax yaay dikk na ko ñaata mu ne nangam lay jaaye waaye nangam laay jëndi moom ci mbay mi dem la xam te noteel la nangam laay jëndee ku yore euh, ordon euh, nga yore ordonnance wala nga yore saako ceeb dikk nga yore sab xaalis toog mën ma yore suma bagaas xam ma fu ma ko jaayee gouvernement ba bu sa jàppoon baykat képp la ñuy dikk ne ko ñaata ngay jëndi dikk si yow mi yore sa xaaj ne la ñaata ngay jënde béykat képp koy def ñaa borom bitig bi sax tey boo demee mën na la ñaata yow yow mi soxla tàngal tàngal bii lu muy jar nga koy wax waaye tàngal bi nangam laa koy jënde baykat képp lañ ko notee dikk si marché fekk waa ji toog yow nga yore bagage mu bëgg ko foofu yow it xaalisam ba nga soxla rek léegoo léeg bu nawet wàccee da nga gis gouvernement bi dikk topp mu luuma yi nekku manqué deux cent nañ ko jàpp ma yore suma xaalis ma yore suma gerte yore suma ordonnance baykat euh, commerçant bi dikk ne ma waxal ci kaw ne bindal si ñeen deux cent laa ko jëndee mu jëndee ko fanweer ak juróom ngir soxla naa xaalis ba suma ceeb jeex na xamul lu ma jàpp hmm? fees dell si marché bi gisoo nit ñàkk déggoo boobu dafa yàq commerce bi ci wàllum waaw waaye loolu yëpp fekkoon mois de euh, décembre gouvernement bi génne na financement mu daj nga xam ne ku bëgg a jaay dem xam fi ngay jaaye ji doo sa am benn problème waaye loolu it ñun ñi loxo yi muy jaar dañ koy jox ay commerçant ñu jël ko di ko mbappat si luuma bi ba du xag si baykat yi bu boobaa nag nit ki soxnaam ne ko hôpital bële wala euh, caakub ceebam ba jeex boo ne ko fenal ma jox la mu fen nga jox ko loo ma jëndalee nga ne ñeen fukk mu jëndalee ko fanweeri juróom si suuf maa ko gis suma bët si marché ci lool ci wàllu ci wàllu exporte bi aussi tamit fii est-ce que baykat yi danañ tàmm di di bay ba pare exporté di yóbbu lu ci mel ni ci génne bitim réew jaay. yow koo xam ne nii mbaam ma ko war a jëlee sa àll wala fas ma ko jëlee sa àll ba danga nga koy xàbbi mën ngaa exporté muy dem. lu ko yóbbu Kaolack gi rek dalee te marché bi rek am na ñoo xam ne lu leen ko fa yóbbu dañuy xàbbu ñaari fan du ñu xam lu leen ko tegal mu yóbbu ko fa kon kooku bu na yóbbu mu dem mante ne gouvernement bi moo war a indi yëfi mu jege baykat yi baykat yi gis seen bopp mu jàppale leen fexe mu dem ak ñi xam doole fexe mu dem waaye feeg defu loolu du seen waay yi dee moom am nañ ci ndimbal lu mag bañ ci dikkee léegi seen waay yi moom léegoo léeg moom moom dañuy jënd prix yu baax bu leen gaa yi gàttandu wut moom it dañuy gàttandu jëndee lu néew si baykat yi dem jaayi leen ñu baax commerçant yi ñoom danañ say am danañ say baax la sa njëlbeen nag amutoon intermédiaire diggante seen waayu euh, baykat yi fi mu na dafa am intermédiaire seen diggante ba nit ñi jotatuñ ci xaalisu seen waayu